تكلم تار نصر من دونه متاني لا إله إلا الله لا allah allah la illah ma kumba baay yow yaa bëgg baay la illah illallah allah allah la illah la illallah kan moo waral li Cheikh al Islam kan moo waral li Cheikh al Islam moo waral baay kan moo waral li Cheikh al Islam moo waral jërëjëf baay jërëjëf never, I Mbakke dundal weral dundal weral Seydi Tijaan Anta Barhama ibnu Abdallahi fetal nga ñay warabi doon waral Seydi Barhama xalal borom ba di gaynde أهل الإسلام جيل الملايين سيد باخ من عامل المؤمنين بفنا فريب سادان برم فاصل بنيموي سيد باخ من سكلين سنبي تردوم yéen ñi di nga doon bàyyi ku yàlla xalaat cey da ngay di nga Seydi Bara xamana gaynde ñoloor gi war nga da yaa da lampu faas leeral nga xadduna li ci biir Seydi Bara xamana isin bu mag bi yaa yor lamp yi yaa leen di may leer ñaa nga leeral cay ñaa nga lëndëmal Seydi Bara xam Ibrahima na lëndëm ci kaw lëndëm taras xaw na ñooy dee ci neen yaa ñu xadoon cay yaa ñu xeddi seydi bara xam la ila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 wax dëgg yàlla xale la boo xam ne xale boo am ambition la koo xamante ni da doon bone sa bët nga teg ko ci ne naa jël ay xale liggéeyloo leen ñu mën a avancé ba fàtte sa bopp kooku yàlla na ko yàlla jàppale bu ñu amoon fukk yu mel ni moom wala téeméer yu mel ni moom Sénégal dina xaw a génn situation bi mu nekk ndax li war a jëmale réew mi kanam dépendrul ci nguur gi ñooñu seen bopp la ñu tal seen bopp la ñuy liggéeyal la ñuy liggéey ñoom ñoo ko xam mais lay jëmale waa réew mi ñoo koy liggéey kenn ku nekk bu la yàlla mayee nga am tuuti nga jël ko defaat ko ci biir réew mi ay doomu aadama di ci liggéey ma ngay tasaaroo ndax di nga formé ñoo xam ne ëllëg dinañ def ni yow bu ko defee yëf gën a law kenn dootul soxla dem fenn comme ni nga waa ji waxee léegi kenn dootul mbëkki même tukki bu légal sax nit ki dana dem ba tollu foo xam ne dootul ndax li nga bëgg boo ko amee sa biir réew jartul ngay dem fenn kon dañu koy ñaanal yàlla yàlla na koy yàlla gën a dolli taxawu lii mu ubbi nii yàlla dem ba nekk loo xam ne lu ko ëpp doole lay doon ba muy ut ay wàllu ñoo xam ne sax ñu koy jàppale ci liggéey bi lay doon yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def nag mënu ma wax mais koy ñaanal rek bàyyi ko yàlla yàlla na kon nag li mu waxoon bi may teew moom mu nga mu nga bat sàkk tey maa nga fii waaye dafa ne yaayu maa kumba du jur doom ju xam ne dañ koy ay cëm di amul yaakaar doom bu xam ne dina ko yor mu toro ci adduna gi ndax yaayam liggéey na ko ndax ya yàgg na bitim réew lool lool lool bu doon yeneen jigéen ñi day daw wala mu am lu muy wax mais mosu koo déggal dara te bu mu ko yóbbante defar na ko ci këram bu fekkoon ne man ku ma nekkoon na xale booy lëj lëjlu wala xale booy wonewu kon lu ko mu yóbbante Amérique du liggéey kër gu mel ni ñu dëkk ndax bàyyi mu ne bi mu nekk Amérique lu mu leen yóbbante bu nekkoon yaay mu jëndee ko ay mbasin ak xama gala dala tudd xaw ma ak ay or waaye yaayam defu ko yaayam da ngay ñëw kër gi sax nga laajte ne ana borom kër gi ndax mère bi ni mu néewalee boppam kon nag néewalul boppam dafa doon defar boppam dake jigéen balaa baa nga liggéeyal si jëkkër ba si jëkkër gërëm la te baayam de moo toog ni ma toog mun ma mbeng ma ne ko mbake mu ne ma maa kumba mii de du torox mukk ci àdduna te kii yaayam du am doom ju ñeemantu kenn kenn te am na ndax bi muy dem dafa ñëw fii pour sibiru yaram bi sutante woon rek mu ñëw fii yàlla dogal yàlla moome ko fii ci kanamu njabootam te yàggoon am na diir bu yàgg gisaatewul ak njabootam waaye xoolal yàlla ni muy rafetale dafa ñëw fii rek mu tàggu ma mu ne mbénga day dama bëgg dellu Amérique waaye nag kër gaa ngoog mu nekkee woon sa loxo ndeke waxu yàlla moo dëgg gën a dëgg nekk dëgg waxu nit ñetti fan ci tegu paa bi liggéey mu ne dénk naa la njaboot bi ba nii ba nii bàyyi mankumba bool bi mu daa añe man mii maa koy añe te ëpp na juróom-ñetti at léegi wala juróom-ñaari at boobu beetee ñu ngi ma koy gëmee ma ne maa mankumba waa quartier bi yëpp ku war a gërëm maa mankumba dégg na dara ci quartier bi mu fekk ko fi te jëfu fa déedéet mosuma ko fekkee de man waaye yu ma fekkee yëpp jëf na sama doom a ngi nii si ginna ginnaaw ñu yore appareil mooy Baye Sall mii lépp lu ne ci boppam te ci affaire pompe kii peinture bi Makumba moo ko dugal ci boppam te lu ko Makumba digal def na ko moom it maa ngi koy sant di ko gërëm lool baay bi ma féete en ah kay wax ne dëgg baayam laa kaamil bi ñu wàcc fii tey ñu ngi koy wàcce kër bi baayam demee ba léegi ñu ngi koy wàcce chaque année te kaamil boobu suma loxo lañ ko teg Makumba warul ñaalu kenn warul xalaat dara ci àdduna ndax baayam moo ko ñaan suma kanam boobu demagul ay fan la tego mu wàcc liggéey kon nag ñaanam nangu na mo lu mu góorgóorlu rek yalla gën ko dimbali gën ñàkku ci sëriñ tuba lu mu góorgóorlu rek yalla dina ko gëna dimbali waaw kon nak jere ngeen jëf e eh, tam ma ko nga non seen mak la defal na xale yu bari nak ci quartier bi aussi nda ko xamne da ngay doxantu wala ngay ni nii makuma daf lay jël dugal ko ci entreprise am ngay liggéey bu dee ñetti fan wala ñeenti fan da nga koy liggéey kon nak yalla na la yalla gëna fulandi lepp lo yóotu yalla nako ko yàlla yombale la jot bi jay mustafa man mii day bàyyam sant naa ko gërëm naa ko ndax waa dëgg yàlla ba fi ma toog nii laa maa ngi togg di yëkk suma kër waaye nag boolu bool bi bàyyam daa añe moom lay may yëkkale moom lay añe toujours saa su ne saa su ne kon nag man mii maa leen dese waaye nag yal nañu yàlla yàggal maak ñoom yal ma yàlla yàggal ak ñaak maak ñoom entreprise bi yal na nekk entreprise bu gën a yaatu ba ñëpp bokk ko barke Cheikhul Khadim yàlla am na ko mën na ko journaliste yi yéen ñëpp ku nekk maa leen nuyu sa tur ak sa sant ndax tey li ngeen ñu defal dafa neex ndax nit ki amoo leen lu sa bés say nit yi baax ñëw teew si suñu rakk ji nag dañ koy ñaanal Makumba Fay moo topp sama ginnaaw sama rakk la ma bokk ndey ak baay waaye dafa nekk rakk joo xam ne dafa sës si ay magam te du leen rëq Makumba xamul coow bu ñu werantee kër ga sax su ñëwee sax day met day énervé wu taalaat otoom ñibbi soo waxee mu ne bëgguma coow kon na nekk na rakk joo xam ne dañ koy ñaanal gudd fan wër gi yaram ak fan yu gudd yàlla lafal ko cet ndax xale la ni nga ko gisee ni xale bu ndaw la alalam na du ko boolee doomu aadama yi si yaayam ak ay sëram ñun la ko njëkkee barki démb Njaay sama doomu baay lañ ma may njëkke xaas bu weex tàll la konte yëkkati jox ma lu mu am bokk ko sama kër baay bee moo ko defar ba mu baax yóbbu ay ñaari rakkam bitim réew yóbbu leen fa ba démb Njaay la yóbbuwaat suñu caatu kër yóbbu ko yëkkati ay million am tey mënoon na koo jël di ko yóbbu ci soirée Wally sekk di ko baatare di jaay taar waane def ko lu mu am bokkook ay mbokkam bokkook yaayam bokk kook ay magam bokkook ay rakkam lépp di ko def da ngay xool dëkk bi ni mu méttee rek te yow moom dafa yor xaalisam macha allah tey ku ñëw wax ko problème am du la du la neenal dina wéetoog si yow day joxe nit ñoo xam ne sax ñun ñooy ñëw romb si mbedd bi ñu ne ah yow sa rakk bi de moo ñu may li moo ñu may le ñu ne ko ah, moom dafa nekk ni koo xam ne du jëfee li muy jëfee du ko waxee kenn dañ koy ñaan xale la nag dañ koy ñaan gudd fan ak wér-gu-yaram maison de la peinture bi mu def nii fii si comico bi dañ koy ñaanal mu nekk entreprise yu bëri am lu kawe njottam ñu may ko gudd fan ak wër sama yaay na kontaan na moom moom tànkam bi dafa damm loolu tax moom mënul ñëw sama sœur bi nekk fee tamit dafa tuxu nekk këram kuunoon loolu tax mënul ñëw loolu tax man ma ko fii waane ñu ngi koy ñaanal bu baax lii mu jëmbat nii yal ko si yàlla dafal xéewal lafal ko ci cat may ko gudd fan ak wër bu a baax a baax wax dëgg yàlla nekk na nit koo xam ne am na waane ay mbokkam la njëkk a defal balaa muy génn si mbedd bi kër papam bi ku fa dugg respecté ko moo ko defar ba mu rafet yëkkati ay millions def ko ci kër gi lu mu am bokkook ay mbokkam dañ koy ñaanal dañ koy ñaanal lu baree bëri merci beaucoup yan tamit yal na leen yàlla fay saxal leen seen liggéey merci beaucoup. suñu kilifa gi mi euh, papa Meng ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare di remercier ñëpp ku fi teew. di remercier Makumba bu baax a baax a baax ndax taxawaay bu mel nii bu am ci koñ bi ndax bëri na si jeunes yoo xamante ni ñëpp si loxoom lañ jaar te teraangaam bi ko yàlla defal ñu ngi ciy tedd bu baax a baax a baax ñun nag lii suñu fierté la papa ndax ñu ñoo foowandoog moom si koñ bi teewul lii mu koy tax doxalee si koñ bi ñun suñ fierté la ñun ay moroomam kon mënuñu di ko ñaanal yàlla yàlla yëkkati ko may ko kàttan wér ak mbebet ak yeneem ci place bi yalla nako ko suñu borom defal ci barke sayidina Mohamed barki seen njabotam ak ñepp rek ci bark sayidina Mohamed sallallahu taala alayhi Wasallam. ñi ngi remercier ñepp ñun nak mbégte rek lañ am motax dañ ne mun ñu sey baña a kaddu diko ñaanal yalla rek yalla yokkati ko ba ci kaw kaw ci barke Seydina Mohamed jërëjëf ñi ngi nuyu ñepp nak merci. waaw ah, bisimilah rahmaani rahiim ginnaaw ma jul sama ah. tey Makumba moo war a ñaan bës ku baax ku gore ku ku civilisé barke yonent bi xaasam du ko booleel nit waaw moom xew la dañuy bàyyi suñu liggéey yëpp ñëw tey lay indi rek palaasam bi carrément ça lii bu ko xam ne ay milliards la def bëgg a bëgg a jàppale xale yi jeunes yi Makumba du Makumba du tirise def dara Makumba rek am sa problème nga jàppale la sama combat bi sama combat bi paas xaas bëri la yëkkati may ma billaahi wallaahi bu ko sañoon mu ne booy ay la lañ ak yéele yow yaa mais ko dañ ngay ñaanal rek suñu wax bëriwul yàlla na ko may gudd fan a wér lu mu moo xam yàlla na ko yàlla defal billaahi wallaahi dafa baax combat bi passé xaalis bëri la yëkkati jox ñu loolu bu ko mu ne non non lii laa waaw moom jàmm rek la am gi may bës ay milliards a def si place bi bu ko neexoon dem moom moo xam fu mu neex mu ne defu ko jeunes yi lay jàppale kon na ku jàppale jeunes yi dañ laa war a ñaanal parce que yonent bi yàlla jàppale waaw yàlla na ko baañas jàppale waaw moom baañas rek lay toog yàlla le, ko jàppale loolu la amoon lu ñuy wax waaw jàppale bisimilah auzu billahi ne wànni yàlla buñ sante borom bi julli si yonent bi waaw moo ko mën a daa nekk si grand boo xamante ne ni maanaam moo ñu jàppale sax laay wax waaw moo ñu jàppale ñun tamit amaana am na leneen luñ taloon ay jamono mais moom ba mu ñëwee wax dëgg yàlla daf ñu see génnee suñu woy juri boole ñoom ñu ñu liggéey man mi may man mii di wax ak yow nii 2014 ba léegi maa si moom si moom laa amee diplôme si moom laa amee lépp moom a tarbiya ba may ñëw si moom xaw ma luy pinceau may ñëw si moom wax dëgg yàlla xaw ma luy pinceau te tey maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax kër gu mu liggéey maa fay dem décorer ko man Saliou amaana tur tànk laa mais am na leneen ak leneen yu mu def sama bopp yoo xamante ne jamono ji maa ngi yàlla taluma leneen te ñeew ma sama morom war na sëñ Touba kon nit ki tamit si lu mu nekk maanaam di si góorgóorlu di si xar tànk tubayam waaw leen mënuñu si lenn lu dul ñaanal ko saa borom yokk ko la mu ciy séentu ak la mu ci bëgg saa borom defal ko ko si barkeb Seydina Muhammad waaw te amaana tamit ku baax la mi ngi jàppale jeunes yi daal mu ngi jàppale waa koñe tey buñ taxawoon naan lan la ñuy waxal Macoumba duñ ko waxal lenn lu ñaaw lu dul lu baax daal waaw amaana ñun tamit ñoo sikki siñ sikku bopp rek waaw mais bu dee moom moom si wàlla moom wax dëgg yàlla amuñu lu dul amul lu dul defal ko maanaam gërëm ko waaw at doole moom cant gu wér a wér a a wér parce que doole na si jëmm yi loo xamante ne nii war na sëñ Touba mooy loolu waaw parce que am na leneen beneen dimension bu ñu doon daw ko waa moom mu na ñu def ñu def ñu ay nit yoo xamante ne xam nga tey jamono ji ku ñu gis dinañ ñee kuñ fekk tamit fi ñuy liggéeyee di ñu jox cër bu baax a baax a baax a baax a baax war na sëñ Tuubaa amuñu lu dul maanaam sant ko daal ak gërëm waaw loolu kase lañ am si luñ luñ doon wax ñu ngi jégal xam nga nag wax nag di nga kaa xaw a mu ne daal <laughs> ñu jégal ak léew asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen delloo seen wàcce waaye tey jii nag li tax ñuy wax mooy ki moom bés bi moo ko moo ko jar ki moom bés bi moo ko jar parce que ñun tey jii nii bu fekkoon ni dañoo teg foo xamante ni waruñu fa teg tey fii doo fi gis kenn kenn du fi ñëw mais fii koo fi gis rek ça veut dire que moom am na fu mu la teg yëg na la te nit bu la yëgee danga koy yëg jamono bi foofu la nit moom bu la yëgee rek da nga koy yëg kon lii duñu am duñu wax lu dul di ko si ñaanal di ko ñaanal sànq dégg naa am ko wax li mu si bëgg mu am lu ko kawe ba dem ba di woo ay nit ñu koy jàppale naan liggéey bi liggéey bi liggéey bi liggéey bi ñu loolooy suñu engagement ñun loolu lañ gëm te loolu la ñuy def incha allahu rabbi ñu ngi gën a ñaaxaat ñëpp rek di xam ni lii liggéey la boo xam day continuer nekkul liggéey boo xam dañoo pare pour mu taxaw wala ñëw fii pour exposer lu rafet pour gars yi gis defuñu loolu tey jii nii bu ñu paree fii nii ba ñëpp wan ñu ginnaaw demaat dañuy liggéey liggéey loo xamante ni dafay leer ñëpp gis ni ñii carrément dañuy liggéey ñu ne ñëw décorer fii nii fii rafet loolu yëpp nice na c'est bien boo mais liggéey moo ëpp solo loolu yëpp te moom dafa gëm loolu kon nañuy gën a wax si liggéey parce que moom boo xoolee bépp interview boo xam da koy def wala loo xamante ni dañ ko siy jël muy wax dina wax liggéey dina wax day jàppale xale yi nga xamante ne dañuy bëgg di jël gaar kon ñaari wax yooyu noonu damay dama koy jàpp si moom kon su ma jëlee tey may wax si moom loolu laay gën wax parce que loolu la gëm te nit lu mu gëm si loolu nga koy jàppale maa ngi remercier waat bu baax di leen wax merci beaucoup. waaw mukk moom la ñuy wax si moom bariwul moom borom baax la waaw lépp lu nekk su ñun daal amaana moom moo ko def su ñun waaw ba tay ji fepp muñ taxaw di liggéey ci aduna lu rafet lañ fay liggéey yalla na sa borom lafal cat li mu bëgg ci aduna yalla na sa borom defal ndax buñ nekké sànje mëno xamé ki moy patron mëno xamé ki moy lii wacce bopam oyof tollu barke sëriñ bamba bañ dalee liggéey ci mom ba namu ñu dara ku ñu xool nag ñuy bëgg fu liggéey liggéey seqoog suñu morom nak ñuy respecté lim bëgg nak ci aduna yalla na sa borom defal loolu laa mën wax dal si moom sama xol fees trop trop kon dèjà da nga dem ba am ouverture di liggéey ak ay ministre liggéey nga ak mosieur euh, euh, Malick Ndour monsieur le ministre Thérèse Faye aussi liggéey nga ak moom mais lu waral nga ñëw ubbi entreprise bi gars yi des fois boo waxee ñu ne la banlieue bi wóorul quelque chose de genre banlieue bi par ci par là yow nga ñëw ba buun sa fief nga ñëw samp fi boutique bi lan moo la inspiré waaw mooy comme ni ma waxoon léegi rek mooy dama ne nit ki amul lenn lu dul goxam te man yëmbal géejewaay laa jóge fa laa juddoo waaye yëmbal laa màggee waaw kon donc nag kon lépp lu ma mën a fekk si fii rek man dama koy sante waa yëmbal ma xam ne tey jii nii euh, kon man mënumaa fay waa yëmbal parce que fii laa dooree fii laa tàmbale ba fii la ñu yàlla euh, euh, yu bari fi la fekk ci ginnaaw loolu man créé naa fi benn entreprise boo xam ne e mp la tudd e entreprise Médina Peinture am na presque li ñu ñu siy liggéey si domaine bi toll na ci presque 90 personnes ba yéeg na sax ba ay 150 personnes. 100 personnes waaw 100 personnes. yoo xam ne yow yaa leen di employé. maa leen di employé yoo xam ne tey liggéey nañ ba ñi nga xam ne camp armée de l'air bi nga xam ne moo nekk wakaam ñoom bi ñu amee problème ci problème mu peinture dañ maa woo ma yóbbu fa plus de ay personnes yu bari bari ba li ñu waroon liggéey si 4 mois ma liggéey ko ci euh, liggéey ko ci 25 euh, jours. 25 jours 25 jours laa ko liggéey te li mu fa yóbbu woon ëpp na presque quatre-vingts personnes kon donc loolu yëpp muy ci doomu banlieue bi la parce que boo gisee may def loolu noonu pour xeex ci wàllu kii nii euh, wàllu mbënd bi comprendre nga parce que man loolu man ci sama ci mbëkk bi man ci immigration clandestine clandestin bi man moom laay xeex parce que moom laa wax sax déjà treize même ñu bëri boo gisee ñi nga xam ne tey jii nii ay acteurs lañu ñoom saa yu ma toogee ak ñoom ba si ñoom ay ñoom Waly Seck ak ñoom ñaa xarañ loog ñoom ñëpp ku ma ci mën a toogal tamit aussi loolu laa lay wax surtout ment sax 13 mi nga xam ne tey ji moom moo yore kàddu boo xam ne tey bu waxee Macky Sall dina ko dégg président Macky Sall dama ne ko madame le ministre lépp looy mën man bëgguma nga embauché maanaam nga dugal ma ci fonction publique pour ma liggéey ndax sama entreprise boo ma jàppalee jàppale nga ndaw ñi te ndaw ñooñu tey jii nii maanaam ñoo yore dëkk bi ëllëg te képp koo fi gis nii tey damaa jàpp sa loxo di la jàngal métier nii nga dem ba tey jii may xëccoon xëccoonteeg yow ci wàllu prix bàyyi ma fay la 500000 bàyyi ma fay la 400000 ñu yëg a ko wàcc te ñoom bi ñuy ñëw ñu ngi commencé maanaam ci paas laa leen di jox ñuy dem ak ñëw kon loolu dañuy sant yàlla. parce que tey boo gisee tey may boo gisee ci affaire euh, gaal yi parce que dafa amoon ay sama yenn xarit yoo xam ne ñu ngi doon liggéey te ñoom ñu ngi dëkk côté ay Bargny ma gis ne ñooñu am na affaire bi laal na leen des nañ ci géej gi mu ma ne à partir d'aujourd'hui tey man lépp lu ma mën rek man dinaa xeex si wàll mbëkk mi man loolu moo tax sax may gën a góorgóorlu tey jii man bu ma neexoon tey suba suba suba mun naa fanaan Europe parce que sama moyen bi macha allah may na ma ko comprendre nga mais dama ne man li may dem parce que xale yi lañ war a mën a jàppale looloo waral man ma jël sama xaalis daggal ko sumay rakk ñoom ñu génn man ma toog fii Sénégal ndax gis naa ne fii man maa ngi fi teer ndax ku fi liggéey ba war a mën a génne lu tolloog ay millions fayal ko sa rakk ba pare te dama ne man du ma yem sama rakk képp ki nga xam man tey jege na ma mu nekk suma mbokk bala mu nekk sumay dëkkandoo man pare naa pour ñëw ma fekk si la si sa benn moyen ma jàppale la. ci mbër yi nekk sa koñ moom laa wax. moom laa wax noonu moo tax moo tax moo tax moo tax ma ne pare naa pour ñi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ne man xàmmewuma suma rakk ak ak ak sumay dëkkandoo man ñëpp sumay mbokk lañ ñëpp sumay bokk sumay sumay am di jàmm lañ moo waral man bu ma xewlee kii euh, rëm dama ko wax rek mu ne ma non am naa samay jigéen ñoo xam ne ak samay góor yoo xam ne tey jii man fu ma leen woowee rek ñoom dinañ ñëw man ci loolu ci laay dox parce que man ndaw ñi man man laay safoo waaw man ndaw ñi laay laay laay safoo bañ naa ko sax buñ ma buñ ma lu ñu wax rek ñu ne waa mais doomu sénégalais parce que boo xoolee su ma teg sa su ma tiktok sax dama naan man doomu sénégal ma tax man lépp lu may tudd maanaam muy benn compagnie boo xam ne dama koy tijji foog maanaam foog mu am benn nataalu boo xam ne maanaam mandarga senegal la. mais fii ci boppam instant bi place bi liggéey bi na lay demee. waa liggéey bi moom man ci peinture laay yëngu ma doon dem TQG di fa jëndee ay peinture waa TQG gis ne man nii li ma fay jëndee ci ay peinture bari na DG bi ci boobu woo ma ne ma pourquoi pas que ne mun na tijji sa compagnie bopp ñu gunge la kon ñoom tamit dama leen di sant di leen gërëm comprendre bu ma jëlee ñu jox ma lu tolloog ci ay millions yoo xam ne tey jii nii tey boo ko xaymaa sax presque yegg na ay 11 millions kon ñoom loolu dama dama leen koy santé quoi parce que parce que dañ gis ne ñoom ci boppam dañu war a ànd ak man ñu liggéey te ma ne leen nag du ma dem fenn nag parce que boutique bii genre boutique yi mel ni ay dakaar nga koy gisee ma ne leen non man tey fii laa ko def ci banlieue te ay doomu banlieue bi incha allah ñoo ciy yëngu. yaakaar nga ni marché yi dina ñëw. non marché yi non parce que mi ngi ñëw ndax nit ki yaakaar naa boo amee ñaanu sa dëkkandoo yi ak sa ñaan ñi nga xam ouvrier yi nga xam ne tey doo leen yoral benn weccet yaakaar naa loo fëgg rek yàlla da ciy da ciy da ciy def barke. numéro commercial bi. Euh, numéro commercial bi nag après am na ku ko euh, war a joxe mooy euh, kii nu ñu koy wax sax. Mm, waaw waaw dina la jox yow sa numéro personnel doo ko joxe. waaw sama numéro personnel moom mën naa kaa joxe c'est 77 la 649 88 40 numéro boobu noonu moom. 77 649. 88. 88 40 40 40 waaw mooy numéro buzz. waaw mooy numéro buzz ku ma la jot. ku ma ci woo dina ma jot. ku bëgg liggéey ak yow bu la bu la contacter. man ku bëgg a liggéey. maanaam muy xale parce que dama waxoon sax ne man dama arrêté woon di former ay booy parce que dama demoon boo jot bi mayetuma ko léegi man ñi ma formé ñoom laa bëgg ñuy formé waate parce que parce que da ngay dem ba mujjee bi temps bi dootoo amati parce que mu ngi mel ni benn joueur professionnel rek nit ñi dañ la koy nangul boo demee bay liggéey bay football nga nekk pro maanaam dootu amati temps comprendre nga léegi nag lépp lu war a lu war a nekk rek mooy ñi nga xam ne tey jii mooy école ba nga génnee tey ñooñu ñoo war a génnaat pour war a mën a dem war a waaw continuer bés lan ngay tëjee tey lancement officiel boutique bi lan ngay tëjee ñu waajalaat leneen après waaw mooy li may tëjee leen la rek mooy nañu sant yàlla bu baax ñu xam ne tey bés li mu def parce que benn métier doomu aadama waru ko war a mën a xeeb non non man gëwuma loolu nit ku nekk lépp li ngay mën a nekk muy Europe muy muy Chine nag muy feneen ñoo ci yem boo gëmee ci li nga nekk muy soudeur maçon plombier électricien lépp boo gëmee ne fii nii boo ko gëmee laax te jub si parce que affaire bi lenn moo ci nekk liggéey boo mën a nekk boo ci jubee yàlla dala ci teral te kenn mënu la see lu dul suñu borom man gëwma leneen lu dul yàlla te man bañ naa ko sax man ñi may ñi may ñi may kii nii ñi may nekkal bu ñu waxee sa dama naan leen affaire yi daal suñu borom la ndax boo gëmee ne fii war nga fee war a mën a tekki nga fas jom di di liggéey comme ni ko si suñu papa yi defee ba ñun tey jii nii ñu jël seen relève boobu noonu boo ko defee di nga di nga di nga di nga réussir. parce que fu mu ne Sénégal fii nii c'est vrai que ne xaw na métti na tuuti waaye mais nag euh, il faut tamit état bi mun munu mënuñoo wéeru ci état état mënul def lépp nga ne état parce que tey jii état bi leer na ma sax route bi sax mosu fee jaar. lu dul maire bi maire lañ lañ fiy seen comprendre nga lu dul nag xanaa élection ñëw ñu ne fii man de gisaguma ko waaye xanaa bu dee rutu yëmbal bi mais kon nag kon fii état kon munul munul munul ñëw jàpp fii ni benn doomu aadama mu ne ko kaay ñu kii la ndax état ku mu jox day jox comme sama genre yi te sama genre yi sax ku ñu ko jox moom maanaam day day ñëw ma ne ah, benn as asa ngi ni bala keda ngi ni kaay ngeen ñu liggéey ñu bokkandoo ñun ñëpp man daal li ma gën a li may gën a lancé rek mooy ndaw ñi nañ gëm suñu bopp ñu wàññi maanaam mbëkk bi ñuy dem waaw nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko wàññi bu ñu ko wàññee parce que xam naa ne ñun euh, doomu Sénégal yi kenn mënu leen a téye moment bi waaye bu ñu leen ñaaxee rek comme si genre bu mel nii rek occasion la nii parce que du ma ne euh, c'est la première fois ma jàkkaarloo comme site bu mel nii comme yéen waaye nag man damay lancé waale appel ci jeunes yi rek ne leen nañu jéem a góorgóorluwaat rek jéem a fexe am visa boo xam ne bu ñu ko amee muy visa yoon bu normal ñu dem parce que kenn du tere nit ne ko ne ko buy dem comprendre man daal loolu laay wax en tout cas daal ku bëgg liggéey ci moment bi gën naa nag euh, doguwaat pour fexe pour jàppalewaat mm, jeunesse bi ci sama euh, kii bi euh, entreprise bi waaye parce que kii bii nii compagnie bii nii maison Sénégal peinture la maison Sénégal peinture la te fu mu ne nii actuellement nii man parewaat na pour tijjuwaat yeneen yeneen yeneen yeneen yeneen zone te du yàgg dara fii ay quelques jours rek incha allah bu ànd suñu dogal suñu borom bi incha allah dinañ ko def da entreprise bi tamit aussi am na plombier am na carreleur carreleur yi instant bi ñu ngi liggéey si parce que. du peinture kese. non du peinture kese parce que am na carreau am na am na maçon mais maçon bi nag bon finition intérieure bi la lay gérer mooy parce que comme bi ñu yoree nii neuvième étage la mais lépp lu ci lu ci lu ciy kii nii man maa ko yore. tout finir la lay defal muy maçon bi muy euh, plombier bi moo man duma bëgg def lo xamné manam tay euh, buma yalla yalla téré quoi buma ma caabi wanee ginnaaw rek manam damay yaxel des moo toujours rek man damay jëma a def lo xamné tay tey jii nii yàlla dina ma dimbale quoi waaw loolu dal la daal lumay wax daal sama gars yi mi ngi ouverture officielle de euh, kii bi nu mu maison Sénégal peinture hein, maison Sénégal peinture nek waaw waaw maa ngi sant tamit aussi maire àjjana waaw xam naa après yéen di ngeen fa dem euh, muy suma yaay waaw sànq moom laa waxoon ne muy suma sëriñ kon daanaka kon fàtte ma ko kon xam naa sama mag bi dafa maanaam comme ñoom dañu dañu dañu bëgg maire bi rek mm-hmm. waaye moom lii yëpp moom la ndax depuis suma papa bi mu génnee àdduna ba tey moom lañ fi xàmmee comme suma comme comme moom maanaam mooy suñu lépp daal mm-hmm. waaw parce que boo xoolee paa bi mi ngi nekkoon États-Unis kon diinaa bi kon suñu yaay lañ gën a xam comprendre nga ba tey paa bi nu mu làkkee parce que man sama papa muy suma référence parce que lépp maanaam euh, maanaam nan laa koy waxatee coonoom bi dafa bari woon dafa daj coono boo xam ne maanaam lépp dafa dafa xidmaal ay doomam ci wàllu dóor waar ci liggéey rek lañ ko xamee parce que ñun maanaam image am ci kanamam sax ñun gisuñu ko bari bësal sa xol waajur dafa fort man mii di wax ak yow sama papa dem na yàgg na yow bësal sa xol rek mhm. c'est émouvant c'est émouvant mais nag il faut accepter Hein. il faut accepter c'est la vie c'est la vie sant yàlla man mi di ko interroger nii sama papa génn na àdduna waaw suñu waajur dañu ta lu ne ci ñun dañu taj lu ne ci ñun mais tamit ñun ñooy continuer rek ci lancer lancé non lancer lancé bi ñu bi ñu bàyyi ñun ñooy continuer ci lancé boobu rek continuer bés continuer continuer il faut continuer il faut continuer waaw kon maa ngi koy ñaanal yàlla rek di ko wax ne ko euh, maanaam bu may bu may bu may dem di xooli référence man moom laay jël looloo war man mooy sama lépp looloo waral coono bi mu doon daj nag man tamit bëgg naa daj lu ko lu ko lu ko lu ko raw c'est vrai que ne mënu ma ko sax mais damay jéem parce que dama xam ne moom dundam bi yëpp dakaa xidmal ay doomam looloo waral man bu ma amee dara sax damay naan lii sama maanaam comme yàlla may guma euh, soxna laa jël capitaine bi takk ko waaw waaw moom laa takk ne lii sama papa moom lépp lu mu doon def ci biir kër gi man dinaa fexe man dinaa ko def dinaa ko jéem dinaa ko def te sama yaay tamit aussi sama yaay tamit aussi jàmbaar la kenn du maire boobu noonu kenn du meer boobu parce que maire bi benn jour maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi benn wax ju am solo bu mu waxoon dafa ne awa dafa am benn affaire bu muy génnee mu ne ko yaay lii dama kaa war a jox koo xam ne mosta fay ci këram mu ne lii mosta fay sa sama suma yaay ne lii de kon de jarul jarul muy génn kër gi ndax depuis depuis bi ma jógee dëkk ba ba ñëw fii nii ba sa papa yóbbu ma Abidjan ma nekk fa ak moom ba tey mosuma dellu dëkk ba kon loolu loolu noonu moom bi mu koy wax man maa ngi koy dégg ma xam ne kon man sama papa kon yoroon na sama yaay yor bu baax a baax léegi nag man nag loolu laa bëgg moo tax man suma yaay saay mu ko gisee damay jooy parce que dama gis ne kon moom liggéeyal na liggéeyal na sama waajur bu góor ba mu ba mu laxu kon nag kon nag maa ngi ñaan ñi nga xamante ne dañaa nekk si sëy maanaam nañu maanaam nañu góorgóorlu fonk seen borom kër yi waaw te borom kër yi tamit nan fonk seen jabar yi parce que loolu am na solo trop parce que waajur yi bu ñu xoolee suñu waajur yi nu ñu doon sëyee maanaam képp ki nga xam ne copié ko bu nekkee bëgg na sëy kese kese kese dina ko def parce que loolu dafa am solo parce que moment bii nii nii ni nii loolu kese lañu war a xool maanaam yi maanaam euh, yedd ko si ñaari dencanti ñaari waaye dencanti yi nga xam ne ñooy dencanti si biir kër. Mhm. parce que loolu bu ñu ko defee parce que Sénégal moment bi dafa xaw xaw a metti parce que dangay gis sax benn mariage boo xam ne mariage bi deux mois deux mois parce que nga def ci ay deux mois def ci ay xaalis bu dul jeex mhm. ñu ne la sëy bi tas na. Mhm. mais loolu lan moo ko waral maanaam bañ a xool suñu waajur yi jigéen ñi. parce que bu ñu ko xoolul rek suñu waajur yi ni ñu doon sëyee bala suñu papa yi ni ñu doon yoree suñu waajur yi jigéen yi kon bu boobaa yaakaar naa bu ñu ko yoree man muy góor muy jigéen kon kenn du ci bàyyi sa soxna même sa soxna bu la defee rek sax loo xam ne métti na sax yow di nga war a mën a gestuwaat sa waajur bu góor ne ah kii xaaral ma xool ko même ku góor gi tamit bu la defee di nga ne xaar ma xool sama waajur bu jigéen moom ni mu doon ni mu doon sëyee ma jéem ko def man daal rendre hommage boobu laay laay laay laay wax sama ñi nga xam ne voilà man daal loolu daal la bés yow dinañ gën a yaatal après parce que tamit repère nga référence la ci ci jeunesse bi on en a besoin parce que euh, comme ni nga ko expliqué mënoon nga tukki dem Europe dem toogi mais da nga préféré samp fii créer entreprise di former ay jeunes di liggéey di liggéeyloo ay jeunes kon loolu c'est une importance capitale jàmm si yow mon frère dinañ yaatal après sama gars yi ngi noonu ah. seen émission la woon Dóor waar seen émission li ci réew mi tey ñu ngi woon fii ci buun ma leen di joxaat di daje ba yoon ziar ziarat jaa di delloo bi lan la Ndeye Fatou Fall madame Ndiaye Ndeye mm-hmm. euh, lan nga séq ak kii di Beuz loo séq moom ci wàllu liggéey waaw Beuz damaa nekkoon assistantam maa nekkoon aussi tamit si bureau bi man maa aussi chargé woon aussi tamit comptabilité comptabilité bi maa moom yàgg nañ yàgg yàgg nañ yàgg nañ trop sax wax dëgg fa nit ku baax la nit ku bëgg liggéey la nit ku bëgg ay waajuram la wax dëgg fa yàlla ma de moo ko xamee ba léegi laa ko xamee daan doole dimbali doomu aadama yi aussi tamit bëgg liggéeyam En plus, ambitieux, il est tellement ambitieux parce que fait viser loin Nekul parce que pour man lii début kese début mu samp boutique bi mu samp ko employé ay peinture euh, l'homme ci a wax. dañ koy faire. parce que je peux dire que c'est une première finie. fit bu mu am ak courage bu mu am ñëw installé ko fii nii si si si si banlieue bi loolu ku amul ambitieux ku gisul amul vision de loin ragal aussi tamit du ko def parce que genre mel nii je peux dire que ni ah man boo gisaguma ko fii ci banlieue bi c'est la première fois ma gis ku am fitu ñëw samp lii nii ci ci su fa amee tamit bariwul parce que fii ay peinture de qualité la ñuy jaay peinture yoo xamante ni daanaka mun maa wax ni di nga ko gis fii de waaye bariwul. bariwul loo koy ñaanal ci projet bi. projet bi xanaa di ko ñaanal projet bi yaatu projet bi yaatu yaatu yaatu te xam naa ne moom dina yaatu incha allah dina yaatu maa ngi si ñaanal mu am ay ay magasin magasin magasin ay entreprise entreprise maison de peinture egg fu sori ak EMP tamit egg fu fu sori ndax wax dëgg fa yàlla ku baax la ku fonk ay employé yow loolu ku am yërmande lam day jël ay xaalisam di ko def ci ay employé am comprendre nga comme li ma ko waxee sànq dimbale ay doomu aadama te gis naa ni xol bi tamit xol bi tamit dafa rafet xol bi tamit dafa yaatu maa ngi koy ñaanal si li mu subu nii yàlla defal ko ci ndam yàlla defal ko ci lu kawe njottam ci barke sëriñam ci barke baay merci madame. allez merci beaucoup. waaw booy maa lay ziar. siya naa la bu baax a baax tur bi nan la Fatou Mbodj Fatou Mbodj Ami Mbodj ñu koy Ami Mbodj waaw waaw euh, loo doon ci Makumba mi ñu ñëw seet si tey Makumba maa leen yar ñoom ñëpp maa leen yar ma bokk ak seen yaay ndey ak baay waaw yow ak yaayam yéen a bokk ndey ak baay ndey ak baay ñoom maa leen yar tey mu ubbi euh, entreprise bi waaw li nga xam ne ci wàllu peinture lay liggéey mu war a jël ay jeunes sénégalais jeunesse bi war leen employé ñuy liggéey di jàppale ay jeunes comme moom ñuy liggéey di parce que gis nekku kii nekkul rek ne moo fi jëkk def teraanga papaam moo nekkoon Amérique gis nga temps bi amerique di nekk di Amérique ñun Abidjan lañu nekkoon Houphouët-Boigny bu wàññi ministre bi moo ñëw jox papa moo ñëw jox ko billet ne ko demal moo ko jox visa temps booba visa dafa jafe mu jox ko ne ko demal Abidjan demal pare demal États-Unis mu nekk États-Unis di fay liggéey di fay liggéey su doo ñëw amu ne kii moom moom la amul séeréer amul baamal amul dara day indi ay malet boobu Saalum ay satala mu si weeru koor bi mu joxe ko su nekkee ñëw na day indi ay malet ku ne mu jox la képp sol na yéram ku ñëw mu a joxal mbasin bi jox ko ko joxal ki daal la noonu la doon def si boobu li muy dund tey da koo doon ci papa mu nekk Amérique nekk fa nekk Chicago nekk fa ñaar fukki at di faj boobu ak waa mu nekk nekk ñaar fukki at Amérique ku xiif sa mbokk bu feebar moom dina la faj nga opéré moom dina la faj weeru koor su ñëwee day jël ay 400000 350000 daal di ko fajal kon nag ma ko ma su baaxul dañ ko koy laajte hmm. kii nag dafa nekk ni koo xam ne kenn du ko xam xam lañ lañ ko wax walliw lañ koy wax muy Sira Mbodj bi yaayam walliw wàlliw la tudd nga xam ne mun naa ne ah, si waa kër Sëñ Touba si waa kër ji Malick su su nekkoon ne bokku si waaye mun nañ ne bokkoon na si parce que kii dafa nekk ni koo xam ne kenn jooyut ñu dañoo manqué yaay waaye ñun man mënu ma wax de dinaa forcé wax gisa ba ma toogee deux ans la toog sama yaay dee deux ans ma toog sama papa dee waaye jooyu ma benn waajur mu nekk Abidjan am xaalisam rafet bu nga de di yéen ay 300000 francs la doon yóbbante papaam ay or yëpp daf ñu ko takk suñu doon takk parce que fale si euh, Saloum pauvre ñoo fa nekkoon sa ngay am sa jëkkër du la defal dara mais su ñëwee suñu ne nii rek day ñëw jóge Abidjan ñëw yëkkati ay 500000 or mu takkal la ko cin mu takkal la ko def du ne mu defal la ko kon nag mënumaa wax kii su ma ko jàppee su ma nekkoon te mënoon naa jël kër dem luye ji fu ma neex dem luye ji benn néeg 5 benn néeg 15000 euh, wala 20000 xam nga mën naa ko am mun naa ko am parce que su ma jaay fukki jaay mun naa ko am mais kii moo tax ma toog fii kii dafa nekk ni koo xam ne dafa mun a gis nga même soo waroon a dee sax feebar booy waaj a dee ba nga xam ne danga war a suturaak sax soo ko gisee dootoo deeati dama koy ñaanal nag munu maa wax sama mag ji dama ko bëgg bëgg boo xam ne su feebaree damay tiit xale yi nag moom xiifu ma parce que xam nga ne man ñàkkuma fayda ku ma fi toroxaloon damay génn kër gi wala may tamambaalo doomam bi dafa yëkkati or di ma koy jox Amérique day ñëw yëkkati or li ma am si yére mënu ma koo jeexal day yëkkati or jox ma ko ñu may jox xaas jëm lu sëba moo kol bi wax dëgg yàlla Fatou moom maa ngi bu baax a baax a baax gudd mën a yal na am gudd fan ak wer gu yaram wérte wérle li mu am si États-Unis yal na ko muurloo si kattan la yor naa ko trop. jërëjëf euh, monsieur maa lay ziar. ñu delloo ziar bu baax a baax. Euh, tur bi la. Mara Gaye la. Mara Gaye. waaw tey dañ ñëw fii ci euh, Bouna ñëw teewe si ouverture officielle entreprise wu kii di Macoumba. ñu gën ko xam ci Buzz maison maison de peinture sénégalaise euh, ñu ñëw teewe ko yow tamit nga ñëw fekk si ko ci il paraît que yow ak moom yéen a bokk métier mhm. waaw Macoumba bu ñuy wax si moom daanaka duñ fi jógee waaw mag moom bi ñu xamante yàgg na euh, ñu bokk métier bi ñuy def te mu jiituma ci entreprise bi nga xamante ne ñun ñëpp daanaka suñu lépp fa lañ dooree mu ñëw mu yaatal ma uuf ma tette ma ndax ku la jiitu ci bërëb moo lay wax fa ngay toog mu accueillir ñu à bras ba gannaaw loolu tamit yàlla def li muy def tey jii ñu nit ñu nekk ak moom foofu nekkin bu rafet des fois dañuy wootante génn mag moom on pouvait être des concurrents mhm. mais doxul suñu diggante dañuy nekk tey su amee dara lu muy liggéey daf may woone ma kat am naa chantier nangam lan nga ci xalaat lu ma ko war a jëlee lii manit su ma amee chantier noonu laa koy woowee ne ko kat am naa chantier nangam lan nga ci xalaat mu ne ma ah boo defee nii defee nii defee nii defee nii te loolu dara may ko lu dul maanaam ay boroom xol yu yaatu ndaxte tey jii mënoon nañ ne kenn ku ci nekk ñoo bokk domaine ñun ñaar. nekk di ku ci ne dañoo jëmale sa bopp voilà mm-hmm. te yàlla dimbali nañu ba nga xamante ni loolu doxul sama diggante ak moom bàyyi ba bu ñuy ànd sax génn nii nii ndaxte voyagé noonu nañ deux fois ensemble dama noonu nañ Maroc et mais tout le temps dañuy nekk di waxtaan mag moom amuñu réeroo amuñu nëbboo waaw du ma dugg ci moom lu mu yëgul moom du dugg ci lu ma yëgul waaw mu nekk nag nit ku baax a baax a baax a baax a baax nee naa ko des fois lu mu dugg ba am ci problème rek xol bu rafet ak ko yóbbee tu dara xol bu rafet dong bàyyi yéene na ñëpp jàmm bu sañoon tey jii nii ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp am ñëpp tey jii bàyyi loo ko mënti waxal ne ko sikkam xam nga lan nga koy wax xol bee rafet loolu lañ jàpp ne moom mooy sikkam ñukoy ñaanal nak ni li mu jotoon liggey lepp li moy fruit bi ñu xamni ni dañuy wax naan c'est le début du commencement tay ji la ñi lay ñaanal yalla defal la ci lu kawe sa njort yàlla may la ci wër waaw li nga xamanteni moy sa sabab yalla defal lako ci barke Seydina Muhammad ndax te mérité nako waaw wut nit ku bax rek jappal ci baye bu dé nit ku bax rek rek rek ngay wër bo jappé ci baye japp ko ñun daal ñu ngi koy ñaanal daal gudd fan ak wér di ko wax tamit fi nga teg sa tànk foofu la te bu la ci dara dund bu soobee yàlla. beneen sama xam ñun suñu réew on a besoin de jeunes comme vous on a besoin de jeunes yoo xam ne dañuy créer entreprise di employé ay nit ñuy liggéey parce que chômage bi taux de chômage bi dafa yéeg suñuy morom yuy xëy bàyyi seen yaay ci dëgg du ñu am 3000 francs yu ñu joxe dañoo bari ci réew mi léegi nag bu ñu gisee ñoo xam ne dañuy créer entreprise. jël ay jeunes surtout comme moom ni mu ko expliqué yow tamit noonu nga koy defee former ay jeunes ci peinture jeunes yooyu dem ba mën di engager ay chantier mën di am luñ suturloo mën di am luñ yóbbu seen kër loolu c'est à saluer. Mmh. waaw lu wér ndaxte boo xoolee tey jii des fois souvent da koy faral di wax ci lu bëri entreprise am école la ndaxte day jël ay ndaw ñu fekk ñu toog ci kër gi di ataaya di tëdd ko yeew mu indi leen former leen. defar leen ba ñu mën a liggéeyal seen bopp te tey jii bëri na ñoo xamante ni moo leen formé ba ñu génn ber seen daara ten di nekkal ci seen mbirum bopp kon tey jii si bu ñu gisee genre nit yu mel noonu ak fi réew mu toll c'est des personnes yoo xamante ne dañ leen war a jàppale waaw dañ leen war a jàppale bu baax a baax a baax a baax te tey jii loolu li ñu ko mën a may mooy euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorités yi ñuy jéem a xool def ay investigation xool ñi nga xamante ni ñi ngi jàppale ndaw li ñiy créer emploi ndaxte état mënut a def lépp tey jii moom xaarul état pour mën a tey jii nii de ubbi doxal entreprise am xaarul kenn dafa jóg faayatal boppam tey ba tey fii mu àgg looloo ko permettre tey jii mu mën a jël ay nit ñu bari di leen former ba tey yàlla def tey jii euh, macha allah daal ci entreprise am boo fa duggee tey jii boo duggee fekk ko chantier li fay li mu fay yor yëpp ci ay nit vraiment c'est à saluer te ku mat a jàppale la waaw ndaxte tey ji loolu noonu mu am buñ ci amoon fukk ñu utiliser nombre de personnes yi mu am. taux de chômage xëy na dina wàññeeku ci yenn mbir yi waaw bu baax lan ngay tëjee waaw li ñuy tëjee nag moom mooy di ko ñaanal rek waaw di ñaanal suñu waaji bu baax a baax a baax a baax waaw di ko wax na gën a góorgóorlu te mu xam ni yombul waaw te na bañ a gestu jiitu ci kanam ndaxte nee nañ ki ci kanam dong la ñuy korne waaw nga xam ne daal yàlla defal na la teraanga yaa ci mën a góorgóorlu sàmm ko ba nga xamante ni sa mbébét nga atteindre ko sa objectif rafet na mon frère jërëjëf jërëjëf